waral ndaje bi nag tey alxamis fukki fan ci weeru août 2023 la ñu ñëw fii jël suñu maire ci benn interpellation boo xam ne dañu wax ne ci wàllu liggéeyam la loolu nag bu ñu jekkee ba tey daanaka ñu ngi dugg ci ñaari weer yoo nga xamante ne comme ni ko wolof di waxee cin fëqul bënnul yax ga fa nekkoon jugu fa maire bi mënoon ko fee bàyyi mu nekk fi en tant que maire demul fen ñu téyandi ko ñu waroon ko mën a bàyyi mu nekkandi feek ñun buñ ko bëggee woo ko defuñu loolu beneen metti métti bi ci am mooy ñi fi nekk ñëpp nekk ay wayjur nekk ay père de famille kenn ku nekk xam na ni weer ak moroom ja lam muy def ci kër li nekk ci commune bi ci ay agent mbooleem seen tey muy indemnité adjoint au maire di indemnité délégué de quartier ñaari weer a ngi nii mënuñoo jot seen salaire lan moo tax ndax juge bi moo xañ autorité bi signature bu koy mën a permettre mu libérer ces salaires la moom mi ko xañ suñ ko xaw xañoon lu mel noonu waa këram duñ dund ñu bëgg a xañ lu mel noonu ay nit dara waralu ko ludul ndax nee nañu comme que téye néggandiku lañ ko téye pour laaj ko ay laaj te ay moromam jaaroon fi dëgg nag dafa neexul te trop c'est trop on ne continuer à souffrir ñu nekk ay victimes ci lii nga xamante ni moo xew ñaata nit lañ fi téye may leen may néggandiku en attendant ñuy régler loolu pourquoi moom mu nekk cas d'exception kon li ñuy ñaan mooy mbayum néggandiku d'accord waaye nag. ñaan nañ ko mais lu war a mën a nekk la. vraiment bu li ngay daj sa kër yaa ko xam mais kenn ku nekk boo ko nattee ci sa bopp war nga gëm ne lii agent yi déplacé wu bàyyi établissement de santé yi bàyyi lekkool yi vraiment bàyyi fépp foo xam ne ñu ngi fa ñu ngi fa teg agent muy liggéey ba ci cabinet maire ba ci nekk secrétariat. ñëpp ku ci nekk bàyyi sa yitte ñëw fekkee lii parce que dañ ne fekke muccul ñun rek bu ñu fi toogoon en tant que comité de pilotage dafay doy mais ñu ñëw toog en tant que comité de pilotage ñëpp ñi ñu seqal liggéey bi ñëw toog nii dañuy wan nañ ñi toog ci présidium bi ci table bi ak ñi toog ci chaise yi ñu jàkkaarlook ñoom ñun ñëpp ñoo bokk revendication ñaari yitte kese lañ am. suñu maire suñu kilifa la am nañ droit li ñuy ñaan ñu ñaan ko autorité judiciaire li ñuy ñaan dafa dëppoo ak dëkk bi ñaanoon ko il de cela un mois fii ci biti ma waxoon ci turu personnel bi ñaan googu ñu ñaanoon moom lañ ñaanaat fii tey mooy suñu kilifa suñu ko bàyyee ma ne bàyyil bàyyi ndëkkandi ko mooy li ñu gënal mu continuer liggéeyam di ko def le temps que ñoom ñu continuer seen procédure ba yàlla def incha allah li gën suñ nu ko mënee bàyyil définitivement mooy ñu accélérer dossier bi mooy lu ñu gënal te ñu am ci yaakaar leneen li mooy ginnaaw signature boobu premier adjoint moo fi nekk di évacuer affaire courante yi waaye affaire courante yooyu nga xam ne premier adjoint mu ngi koy évacuer mandat de salaire yi bokk ci ak li nga xam ne war nañ ko fay fournisseurs yi parce que dañ ne dafa am insidence financière ginnaaw dafa am incidence financière ba moom mënul signer mandat yooyu le premier adjoint au maire le maire moo ko war a signer yaa xayti nañ jox kilifa gi mu am autorisation moom mu mën di signer suñuy mandat pour ñu am suñuy salaire li tax nag mu metti mooy dañoo dañoo xoosu mois bi nu génn muy mois d'août ñu xoosuwaat nous sommes aujourd'hui le premier octobre kon am nañ deux mois de salaire d'arriéré de salaire te dañ ne ab liggéeykat un jour des est un est mois dû ça c'est l'esprit du code du travail